جبود يا لا يا ما خسر الانس والجن رسول الله اليكم جل جلاله جل بخاو جل سنا موي لا اله الا الله jalla jalaalu jalla baxaaw jalla sana mooy laa ilaha illallah jalla mooy laa ilaha illallah yaa seydi yaa rasulullahi kus bi yaddi maa li siwaaka ala alwi wala axadi fa anta nuurul huda fi kulli kaaynatin وانتصر الندى في مخرب الألم يا من يقوم مقام الحمد منفردا من مرسلين لما ملاي في الأجم سمت الولاية مام لمام مهدينا نور الهداية min urbin wa min ajami nuurul kidaayati min urbin wa ajami sayyidul khalaa'ihi qul summa suflimi bunu yendoog moom bis bunu yendoog maam baay laay baay sey deeg sey naa ma njoon daanu Facebook. Bunu yendo nu yendoog maam bay laay bay sey des bay ma njoon yendo be bismillahi rahmani rahim auzu billahi min asheytaani rajim laa xawla wala quwwata illa billahi alil azim ginnaaw bi nu sante yalla julli si sangu sangay yi seydina limaamu alayhi salaatu wasalaam di ñaanal serigne Ablaay mu yagg fi lol te ànd ak a mboolem kilifa diine tey dañu jogoon ngir seet seetse boroom xam-xam bu màgg bu ñëpp xam bu ñëpp a ràññee ci diine ji ñu tuddee ko El Hadji Abdoulaye ñëpp a xamee ko ci turu Baye Abdoulaye mu dëkk sa Caaroy Géej Caaroy Géej mu ngi nekk ci région de Dakar Sénégal fii Seydina Limaamu ootee ñu jog ngir fésal ak biral wooteb Seydina Limaamu bi ñu dégmal toll ci cent trente sixième appel muy téeméer ak fanweer ak juróom benn ngir ñu jog ñëw gëstu ci moom laaj ka ci mbiri Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam ngir mu leeral ñu ngir àddina bépp mën a xam kan mooy Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam ngir ñu mën a barkeelu ci ab ngir mën a leeral àddina bépp kon mbokk yi ñu taaxirlu ngir jox sunu góor gu tedd gi sunu sang mu leeral ñu si mbiri Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam jërëjëf jërëjëf ndax tànk yi ngeen dox di ay xale waroon a dem ca wan àdduna ginnaaw di gëstu seen diine ba àgg ci di gëstu ndawal yàlla yi leen ndawal yàlla li nga xam ne ñu bari réere nañ ci mbir ba mu jëre leen seen dérangement bi te nu bokk dul ñëpp yàlla nañu ci yàlla jàppale def ngeen lu am solo ñëw ngeen it ci ku mat ñëw laaj si ngeen tam ku ko mat a laaj ci kaw ki xam li mu ci wax te jàng ka bon nag yàlla nañu yàlla jàppale ba ni ñu ko bëggee yàlla doxale ko noonu ba àdduna bépp kontaan ci mission bi nag ci bala maa dem dub tariixa rahmatan lil alamina la wax waxtaan waxtaan jullit yépp ak a bokk ñépp ca la ñu bokk waaw rahmatan lil alamina yéen mën nay jullit mindee fi nag ñëpp ak a bokk ngeen gi ko noonu waxtaan wi te yéen jéem kaa ràññee noonu xam ki réer mbindeef yi ba tuuti xam ka mooy kan loolu daal laa ci bala ñu dugg ci waxtaan bi xam nga li ngeen bëgg a xam oote gi Seydina Limaamu ote ni moo weexoon démb moo ñuul tey moo ma woon démb mooma tey ba der bu ñuul bi yëpp moom rek nga yiy tudd Seydina Limaamu ñu ne sallallahu alayhi wa sallam wax waral loolu loolu moo leen tax a jóg nga xam ne foo ko tuddee ñu ne sallallahu alayhi wa waaye keneen ku moom boo ko tuddee dañ ne radiyallahu taala anhu am déet ah sallallahu alayhi wa sallam jooju ñu koy dàkkanteel ne te muy dër bu ñuul mu leer moo leen tax a waxam jooju nag sax fi ba am fi téeméeri at ak fanweer ak juróom-benn bon yaakaar naa loolu doo su deñ ndax yàlla dafa wax ne képp ku tegtalu ci koy woote te la muy woote man yàlla ànduma ca ne la wóor ko kenn kenn du ko wuyu bay mal xiyaam kenn du ko wuyu bon nag bu ko yónnee mu dox mu dawal ke téeméeri at ak fanweeri juróom-benn muy gën a yaatu ba xajatu ca dëkk ba war ngeen xam ne yàlla nga ci biir ndax yàlla du weddi boppam wa man addala mii man yet ko min duunillaahi maa la yastajibu lahu illaa yawmal xiyaamati alxuraan laa la wax ku tegtal ci kuy woote tala muy woote man yàlla anduma ca yàlla ne ne kenn du ko wuyu ba yawmal xiyaam la wax nag bon nag bu may nii ba du lu a jot ci ba tey internet boo ubbi fekke ci oto si daan maamu ba te waxoon ne fi ma yàlla yónnee may dër bu ñuul fenki saw bi du ma fi tukki du ma dem fenn waa du lu ñëpp ma xam mu xam jooja mat na tey du dëgg mosul a génn yoof bon nag ci la ñuy waxtaan tey appel bii nga xam ne oote naka nag appel mooy aji boo daa yalaay du dëgg ومناجبو داي لاي يا مخسر الإنس والجن إني رسول الله إليكم wax boobu nag moo diis ci ñi riir waaw ne der bu ñuul ah war laa mu yonente surtout mu naa nag mooy Muhammad démba mooy moom mooy moom tey lu yomb la ci bu la yàlla baaxee pour nga xam ko waaw ndax barke démba man damay laa gis benn sëriñ mu doon màggal du ma tudd tur nag bi la di màggal bésam taalibe ba wax ne ne mas naa toog ak moom mu summi mbaxanaam nekk liggéey bi ñu ma ñu ma ko badar bàyyi ba bàyyi sëriñ ba su mbaxanaam moom tam nekk léegi bii tam fa lañ mag gaaño woon ba pare nag ñu ne ka taxoon ñu doon xeex ko du dellu si te ñoom ñu dellu si xerul foofu waay seetlu ngeen foofu barke démb ba rek télévision bi fii maa ko dégg kilifa gu mag gu doon màggal gu siiw ne moo summi mbaxanaam ne leen xool leen léegi bii ñu mag gaaño woon Badar bon dafa ñëwaat moom bàyyam sumi mbaxanaam na man tam fa lañ ma gaay boo dañoo ñëw ah waa léegi nag ka jiitoon badar kan la du Seydina Muhammad nga ne moom nag dootu ñëw yow am na solo de yow saaba bi nga mën a ñëwaat fii diri sawaat diine ka taxoon ngay xeex pour islam taxaw ne maa ñu mu tali si diine yi si tere bu ñuul bi nga ne loolu mën la ne te yow nga mën a ne léeg-léeg ñu weddi seen boppa te duñu ko yëg am wax ba weddi seen bopp te duñ ko yëg rasulullaay dootu ñëw yow sab sëriñ la ñëw maa maa xeexoon Badar ñëwaat naa nga gëm ko ne rasulullaay dootu ñëw boon sab sëriñ xanaa moo pa dara ja rasulullaay te sab sëriñ kenn jàngu ko fenn am déet waaw sëñ Tuubaa dafa wax ne hmm, in kaana ilxaaman إن كان إلكاما فللولي فللولي أو كان وخيا أو كان وخيا فلنبي فلنبي mu leer nañ ñu nag na nekk jàng ci daara yi ba am xam-xam kooka buñ ko jiitalee mën nañ ne wàlliyu la waaye nag aw ak yàlla wax ak nit ñi mu ne kookaa yonent ba xam nga ba leer na ci jàng ci daara yi yaa jokk xam-xam may kek wilaaya bañ ne wàlliyu la bañu topp ka mu ne kooka kat wàllu yu la mën a doon waaye nag ki ne yàlla ma yónni directe ci yàlla waxuñ ñu ne kookaay yonente ba mooy Seydina Limaamu waaw li tax ma ne la ndax ngay mën a gëme koo jàngul fen gëm ko bay bëgg a dee bëgg a weddiloo nag nit ñi ki nu jàng bay bëgg dee man la ne ki nu jàng moo gën a wér ah Seydina Limaamul Mahdil Muntasar kañ yaati saaxiri samaan mu ngi ci téere yëpp fan lay feeñe maxri bi lax sa intihal xidam xam nga intihal xidam mooy fëndikul tànkayam boo eggee ngor foo jëmati ñu liggéey foofa lay feeñe bayaana mawlidoo bayaana mawlidoo aydan aidan wa maskanuko kakhan wa baksataho fisakilil la ilaha kalame bayana bayana birna to wirna maulido tudub limamul mahdi aidan wa maskanuko fumu juddo falay magge kakan ci dëgg dëgg dëgg dëgg. wa baxsato. foofa lay matale nu yónni ka. fi saakili rukami. ca tefesu géej ga. xooli maamu la si. xooli maamu la si. ah. baanat bidaayatuhu. mikaayatul rusli fil ajami. ma ñëw. xooli maamu la si. هو الإمام الذي قد كان منتصرا قد كان منتظرا ليس الولي ليس الولي ولا قرب لذي لا إله إلا لا لا إله إلا لا إلا لا وين جاء ليس له الخطب ليس له خطب واو laa kawtun wala waliyun ila nabi lumiyun rahmatal la ilaha illallah la ilaha illallah illallah wen jaakalami yaa gën jëf dama kaa tënk nag war kaa toj huwa limaamu lesi xat kaana huwa limaamu lesi xat kaana muntasiraan xat kaana muntasiraan moo tax ma dañu kaa jàng te jànguñu ñi ci des ki nu jàng gën a yooyu ci gëm ke ki nga jàngul fenn laysal waliyu laysal waliyun kii du waliyu wala xutbun du xutbu li dil karami ku ñu yónni la moom seen alimaamu laysa loor xutbu laysa loo wala waliyun ila nabiyun lumiyun rahmatal la ilaha illallah la laysa lawol xutbu laysa lawol xutbu kooku du xutbu xawsun du arifina billahi wala waliyun du waliyu illa nabi lummiyun ummiyun kooku la yàlla pigir yónni ko muy maxdul muntasar rahmatal umami muy xe yërmande xeet yëpp ma ñëw sallallahu alayhi wa sallam xam nga wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla fi nu toll nii werante yonent ak seen alimaamu ni moy dem ba mooy tey naa féexe donga la waaye tegoo ko fenn am déet waaw bari na ñuy firi kat te du ñuy laayeen de waaye buñ ko dañaa kooku mooy xayru xalxulaahi waaw yow yow mën ngaa gis xayru xalxulaahi dem téye ku la gën am na firikat yooyu wax di si naa limaamu kat beneen affaire kooku mooy xayru xalxulaahi gaa yaa ngi koy wax ba pare nga bàyyi xayru xalxulaahi dem ca nga xam ne moo tax ñu bind waaw ñuul gi nag mu andi coow li ñuul gi ñuul ñuul kooko ñuul kooko jare lijjanti waaw kan mooy seydil urbi seydina muhammad mooy seydil ajam seydina limaamu kañ dafa am benn délégation boo xam ne danoo jóge woon yaman bi Seydina Muhammad di oote ñu jox leen ñaari mandarga nga déglu bu baax taata te boobu muy taw ñu jox leen ñaari mandarga ne bu ngeen demee Màkka fekk ka ca Kaaba ga moom Seydina Muhammad bu ngeen ko fekkee mu weex mooma bu ngeen ko fekkee mu ñuulit mooma xam nga ñaari mandarga ngoogu te bu ngeen demee bu ngeen fe bu ngeen ko fekkee keneen sa kaaba rek du moom waaye bu ngeen ko fekkee moom dong moom dong mu wax ak yéen wax leen lii ñu leen wax te waxoo leen kooku mooy seedil urbi wala ajam dangaa may dégg gaa yi egsi fekk moom dong ci kaaba gi ñu daal di koy nuyu mu fay leen gaa yi nekk ñu nga jógee saam mu ne jarul ngeen ba xam naa ne saam ngeen jóge xam naa ne saam ngeen jógee xamata mu xam ka te xam-xam bu rëy xamata xam ka palaab àdduna la def ci bët yi palaab àdduna mu nga ci bëti Seydina Muhammad bu la nee jàkk foo dëkk moom la gën a xam waaye si àdduna moo ne ci bët ya bu jóge moom gën a xam bu ko neexee sax la nga denc ko si te mu réer ngoone mooy place sangam la affaire ba nekk boo nekk fa ngay fekk kooku lu xaar ñu wax mu ne leen saam ngeen joge ñu ne waaw mu ne bayir bi leen yebal mooy laabi ba da bu ngeen demee bu ngeen ko fekkee ca Kaaba ga mu ñuul mooma bu weexee mooma bu leen di tëlee lii ma leen yebal mooma loolu mooy seen tànk gars yi afale ñu ne ko waaw. dangaa weex lu ci waral ñuul gi mu ne man na yàlla bind maay matal yonente gi ci weex gi maa koy mu tëli ci ñuul ga alux yu saani yi alux saani yi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam alux yu saani yi waqad mada al waqti mm-hmm. أرسل الله محمد صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان الوقي الثاني يمر الناس بكلمات التوحيد وينكاكم أن أسلك بالله لأجل أن يقولوا لا إله إلا الله وأمرهم أن يعبدوا الله وحده لا شريك له من يوم دقل alwaxiyu alwaxyu saani déggul na Muhammad wax de sama ñëw ak sama dellu si ñaareel la may wax ca woote ka mooy baatub laa ilaha illallah am déet ah la ca tegu jaamu yàlla mi nga xam ne mooy kenn bañ kaa bokkaale kenn du ma paase foofu baatub laa ilaha illallah ilaha illallah baatub laa ilaha illallah la saxal di woote li laay daan yaa ji boo daaya laay wuyu leen ni daan wate sëy di roowa laay ku la way am ngërëm fa jannate mu ne suma dellu see sama ñëw ak ñaareel baatub laa ilaha illallah ba ma jëkke woon ci te ñu doon ko bañ moom laa fay waxaat tere leen jaamuy xéeram ak bokkaaleeg yàlla nu jaamu yàlla muy aji bi ne baatu laa ilaha illa llah baatu laa ilaha illa llah baatu laa ilaha illa llah la saxal di woote li laay daan yaaji boo daaya laay wuyu leen li daan woote biroo walaay ku la way am ngërëm ba jànnate ok xoolal ñaari wax yi sama dellu si batub la ilaha illallah bi laay saxal saxal nu jaamu yalla bañ ka bokale ken selal jaamu yalla ga li yakhbudo wa mukhlisan kama masikut bihi nasal bimu mu se fi ci ñuul gi lol la wax ne sama delu ci ñaarel ci limamul mahdi man lol lay indi seen ma lu mu indi lo rek la indi mbir boko beugé xam dang kay am deet bo beugé xam bir dañ koy gëssu bo xamul nga dem ca ka xam mu xamal la ka su ko defee do ci mëna am erreur waye wé di ci dégg naa rek ah si dañu maa rek nee na baaxul de te man li ma naan kar ansal xëy la moom maa lu ko dalilu ilaa de yow bay lay mi ngay di fookate dama damaa dégg ne ab yonent du yonent nee baxul de moom maa lu ko dama ka dégg rek dégg nonu rek ke sujil ba tax na ñuul gi nag fi laay commencé te kaw wali maa taxaalakat wali maa taxaalakat iraadatullaahi إرادة الله سبحانه وتعالى من كائنات كلية بتكوين كائنات كلية وسفلية وسفلية وبدا وبدا بأسراف العالمين بأسراف العالمين وصولا وأرفانهم في المقام وأرفانهم في المقام خلق نور محمد خلق نور محمد خلق نور محمد خلق نور محمد خلق نور محمد خلق نور محمد من صفات البياد من صفات البياد أنوار ذات الخصية أنوار الأنوار ذات القدس وتخلبك وتخلبك بخزائن الخيب بخزائن الغيب سا سا مالك الحرام مالك الكلام ما يوم di góoma de lee ma lee ma génne la ñuul ko ba mu leer nañ wali maa taxaalaxat wali maa taxaalaxat lii addis yonente bi la dama ko wéyal pour mu yomba rek addis yonente ba du way de wali maa wali maa taxaalaxat ba yàlla fenkelee nara feeñal nara bindali am iradatullahi subhanahu wa ca na meelam nga moom yàlla mu sella mu màggama bi taqwimin kaayinaati nara nekkal li war a nekk lépp wa sufliya ca kaw ak ci suuf wa badda bi asrafil alamina wa badda ca la feeñale bi asrafil alamina ki gën ci mbindeef usoolan ca bu njëkk وارفانين في المخام محمد لين خلق نور محمد بننا naa leer ak Seydina من صفات البياض ci ci ci ci ci ci ci ci ci matière bu أنوار ذات أنوار أنوار ذات القدس أنوار ذات القدس ما جنك سمعي لير لا جن حبيبي حبدتي من نور وصفي سما سما كما لير لا جن سما لير كنم لا جن أنوار ذات القدس حبيبي خبقت من نوري واتخي سما ليري كلام لا جن جن كسيجنا محمد أنواري أنواري كاو ذات القدسية ذات المصطفاوية ذات المصطفاوية وكن وتخلبك أنا وتخلبك في خزائن الغيب في خزائن الغيب سا سا مالك الكلام مالك الكلام من يوم اه، كم مصري ديك لولو وتخلبك في خسائن الخيب سا مالك الحرام متيل ارغمم يالا دوغل كنك شي مانغ سينم ديك تورني ورا بين ماتيري كولوري كولوري دي غومري وتخلبك في خسائن الخيب سا مالك الحرام دي مورا بين نيب ني ني نارا وورو سي بينديف سي دري اك كانامي اك بينديني مي وورو Fofan nak mu ngi tourner bopam mom yalla cey cay maa waw mu tourner ka mu wex tal mu tournéete ka mu xonq cey mu tournéete ka mu maron mu tournéete ka mu tikka mu tournéete ka mu ñul ko kañ yaa ngi dégg dé matière yi lér ga xam ga bi nuri Muhammad du dëgg yàlla ngi bind yëpp ci Muhammad mais matière yi nag yàlla moo doon ku def moo doon def couleur ya moo tax couleur ya mu doon def moo tax nit mën a jël mboobu mu weex tàll la suuf mu ñuul ko loolu lañ ci yàlla may xam nga dégg de moo jël mboobu mu weex suuf ko mu ñuul ko xuma yàlla mu bind nit dégg nga ba mu génnee nag ñuul ga nag moom la jël nag jël jël weex ga dugal ko ci biir ñuul ga yaa ngi dégg bi me namee mu ñew mu ci wéx ga mu jitu comme ñun akhiru samaan lay ñëw mu jël ka ko ma de aw wéx ga mu genn ka muy seydil urbi sanga bu wéx ba seydina muhammad ba mu démé ba matal nag oo saabay né damay dellu ndax man mi may présenté gi dër bu ñuul ba yaangi dégg Seyna Babacar ne ko waaw yow sa dernier temps yi at mii maadi yu rek ngay waxtaane maadi yu min naa maadi yu aw min xayri aw min xayri naa maadi yu mii ngay wax yow wala keneen lex aw min xayri aw min xayri naa maadi yu mahdiyu aw jinnun aw jinnun aw malakun aw malakun mahdiyu mahdiyu insun insun kaamilun kaamilun la ilaha maadu yi mi ngay wax nit lay doon wala jinne lay doon wala malaaka lay doon mu ne maadu yi du jinne maadu yi du malaaka insun kaamilun jëmba ju mat sëkka lay doon te mooy matal jéema yëpp almahib taman mii lay doon loolu nag mu nga génn nun ولما خلق الله جوهرة ولما خلق الله جوهرة أول ما خلق الله جوهرة أول ما خلق الله جوهرة أو وخلق من جوهرة ثلمة وخلق وخلق من ثلمة نورا وخلق وخلق من نور نور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما ñëw déggoo ma de li ma lay wax nii dama ci anwaarul muhammadiya jawhar xam nga jawhar mooy puissance ab yàlla mooy température ab yàlla jawhar jawhar jooju la yàlla jikk bind waxalaxa waxalaxa min jawharatin sulmatan min jawharatin sulmatan mu daal leen jël ak lëndëm nag bind ko si biir jawhar ja waxalaxa waxalaxa ah. min sulmatan nooran kañ bon kañ sëñ bi leer na ma de dafa jël jawharam bind ci lëndëm lëndëm nga mu bind ci leer leer ga kan la min nuuri wa muhammad la ci andi ñuul ga mu jël ah, weex ga génne ko ca ñuul ga fa lañ ko moom moy nekk ku weex moy nekk ku ñuul loola moo ci andi ñuul gi waaw comme nag weex gaa jëkk génn moo tax mu jëkk a feeñ fële woo der bu weex ba di seydil urbi comme nag matal na te di dellu soir ba ca ca ba ba mu matee mu ñëwaat nag ci ñuul gi fii mu tali xam nga ñaari kaale yi kay innal xamaamata innal xamaamata fawqaraati man maa ko ko yaa ajaban seydil arabi wal ajami la ilaha innal xamaamata innal xamaamata fawqa raati man maaku ko yaa ajaban sayyidil arabi wallahi ajala la ilaha illallah boo gisee sama naxi baali baytin muxtaar yaa ngi dégg mu ne bu dellusee ñaari kaala lay laxasoo kaala gu kaala gu weex ak gu ñuul ñu ne nu may mën a kaala gu ñuul que mooy féete kaw lu ma waxalax min jaw xara sulmatan sulmatan na mu jële woon ne nam mu teg tegu si jaw xari ja waaw waxalax min jaw xari nooran kaala gu ñuul ga mooy tegu sa kaw gu weex ga ndax gu weex ga gu ñuul ga ak ëmboonu mu genn ñew wéx tal bi mu ñëwaatee mu boole ñaari mu boole ñaari melokaan ya gu ñuul ga ak gu weex ka moo tax mu indi indiwaale ñaari kaala yi kaala gu weex gi ak gu ñuul gi baatinab kaala ga waaw yaa ngi dégg de téere ba wala rasi amaamatun wala rasi fi xaa malakun kaalag Seydina Limaamul boo gisee bu ko tegee kenn du ko mën a yëkkati malaaka tëdd ci biir weexrijul mahdi wala ras yi fiyaa xamaamatul kaala ga bu ko masaa teg suuf kenn du ko mën a yëkkati mu ne malaaka malaaka yaa tëdd ci biir pour ñu xamal ne kaala gi bokkul a kaala yële waaw ñuul gi amoon leer ga moo ñëwaat tegu ca kaw ëmb weex gi ba weex ga jeexee nag mu ñëw indiwaale ñaari ñaari ñaari couleur yëpp wan leen na man mii maay démb man maay tey kaala gi loolu la firi man a démb man a tey te àdduna gépp doo fi gis ko kaalawu kaalawu googu am déet waaw fa mu jógee léegi nag nga dem imaam ak kii imaam xaala imaam saxraani yu sooy waaxit wal jawaaxira mawlidi imaamul maadi ما دمال في آخر زمان سنة خمسة وخمسين ومئتين ومئتين بعد ألف إلى أن يتمخ بإساء مريم بودك تري تري تري موجود يو يواخد والجواخر imaamu Saxraani bokk na ci bukkali mag yi moo ko liggéey mu ne limaamul Mahdiyu may fenk saw ba di Muhammadu nit fu soobaan lay judd bayaanoo بيانا نصف من صوبالي نصف من تخباني مولده مولدي في أنرس في أنرس إجرتي إجرتي نبيس الكرم نبيس الكرم بيانا بيانا في ليلة نصف من تخباني مولدي في أنرس إجرتي نبيس لا إله إلا الله لا إله إلا الله سكراني نه شي واحد الإمام سكراني شي واحد والجواهر تيربا مولد إمام المهدي من الجد بسيدنا الإمام المهدي سنة خمسة وخمسين ومئتين ومئتين بعد ألف بعد ألف بقداي جامي جوني أت ak ñaari téeméeri at ak juróom fukki at ak juróomi at ca ne su soobaan ci lay judd du ci lay judd am déet wa mawlidu wa mawlidun mm-hmm. min soobaan fi laylati nisfi min saxbaani mawlidi fi an rasin ki jaratin beese laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah illallaah wen jaar kalam léegi ba mu ca juddoo te Andras muy mille deux cinq ba mu juddoo ca at mooma aklu samaani ittamaw waa penku ak waa sowu ñoo daje fii ci sawu bi fii magribi samti ci sawu jant bi yaktafoona dul karami ñuy gëstu juddu Mahdiyul Muntasar fasaayiloona ñu ngay laaj bi ay waxti katara waaye waxtu Mahdi ban waxtu lay feeñ imaamu Mahdiyuna imaamu Mahdiyu maskuurun alal xiyami maskuurun alal ñoom ci feeñam fan lay feeñee indal muallimi mu ne ñeel borom xam-xam ya maxruufun bi admani ca ña gën a xam ca jamono ja dawil ulumi borom xam-xam ya maal kamaali fil kurmi tamat ca palaas ba wa zakka seyku ahmadu kan ku nuy wax seyku ahmad kan dëkk gànjool aarifiina billaahi moo raw ca borom xam-xam ya nax wa xaryati boo xamul fu mu dëkk sàkkal tawil faami mu nga dëkk sàkkal ca bañ ca gànjool mu ñu ngi koy laaj saaloow ñu ngi koy laaj ay limaamu limaamu muntadiran fan lay feeñee li jaxli ndax réere kay fayu jiiw ak ñoom saayibul xusmi kay borom may ya ajaaba xaalalawum xalilo ah. bi samaay farjo wasbiro dana bihe ajaaba xaalalawum ajaaba xaalalawum mun ajaaba woonaa kéemaan woonaa kéemaan xaalixum ñeel ñu yoon laaj Ahmad Kan dalila bi samaay mu ne leen tegtala mbaa gi ci asamaan muy biddiw ba fardio mooy na ngeen dellu te ngeen muñ dana bihil alami jigéen nag feeñam ci ki ñuy xaar yaa ngi dégg de wasbiro wasbiro na ngeen muñ dana bihil alami jigéen nag ki ngeen di ko suuf feeñam jigéen na yaa ngi dégg تتصفون تتصفون لا وقت ذكور في آخر زمان ما تلالت النجوم لا إله إلا لا إلا لا وين تتصفون تتصفون ñu ngay melal. la waqtu tuuri. ñu ngay melal. di màndargaal waxtu yu muy feeñe moom limaamul mahdiyu fi aaxiri zamaani ca geen jamono maa dalaalati nujumi te tegtaloo biddiw ba najmun musamma biddiw boo boo ko mu ngi tudd ataaran xaala ka aayilaw xaala wax na aayilahoo waji wax ja fii saakilil baxri ca tefa su géej ga matlul mawji fil kuuri fa duus bay dale sa kër ga waaw najmun dalaalati najmun dalaalatin ah. fi suxuuri mahdiyuna fi suxuuri mahdiyuna baaxin daaxin fi sannatoo fi sannatoo fi maghribil alami fi maghribil alami yaa ngi bëgg réer nañ mun dalaalatin nañ mun dalaalatin biddiw bare tegtaloo fi suxóori mahdiyuna fi suxóori mahdiyuna ca feeñ ak mahdiyu fi saakilil bakri da de bahin fi sannatoo bahin fi sannatoo fii la sax at di seet fan lay war a feeñe fi saayilil bahri fi saay ruumi tepp tefe su géej ga fi saakilil ruxami bàyyil ma ñëw bindiw la yàlla jëndal moom la yàlla jëloon rek Seydina Muhammad def ko biddiw. wala ma an taxala nuuru def bokkul def ko biddiw teg ko ca aras tudde ko jëw saaw nasabun. nasabun. taxi bi bi xulaawu xala def sa nujuumaha jëw saaw. déedéet ma jëli cim ma ne boo leen dee baag tey de biddiw boobu muy jëw saawu boo déggee jëw saawu mooy biddiw bi nga xam ne moo feeñal ko yàlla yónni yaa ngi dégg de jëw saawu mooy diyaawu ba xam nga diyaawu mooy central dynamo bi ñu barasi bi mu taal lépp muy Seydina Muhammad mu jël keneen def ko biddiw te kata araf moom fu juróom-ñaar fukki junniy at. anta xala nuuru Muhammad mu toxol leer leer ga ca biddiw ba. ila larti yu sama jëw saawu mu jubbu aras bu tudda jëw saawu antaxala nuur muhammad mu toxal leer ga seenaa muhammad fil janna ila sajaratul xuldi dugal kaa ji su tudd ak sajaratul xuldi antaxala nuur muhammad fil janna mu toxal leer ga seenaa muhammad ci biir àjjana ila sajaratul yaqiin tudd ak sajaratul yaqiin antaxala nuuru muhammad fil janna mu toxal ka ci biir àjjana ila sajaratu tuube ñetti garab yaa ngoogu tey boo xam la tax mun a aadama bu lekk garab gi yàq awaa dee laaj jaay lu tax xanaa am na lu tax bu leen ko lekk damay yéegi de dama tax ba xaalis si njëriñ daal di miin yàlla ko wax lu tax lu tax laaj na lu tax <laughs> lu tax mu ne bu laal waaw bi mu nekkee sa jaratul xul di lu nekk sa sajaratu tuubee nekk sa yaaxiin laaluñu ko bi mu nekk bi mu nekk sajaratul xuldi ah ci lañ kalaal laal mu ne leen lekk leen garab yëpp ba mu des garab gi bu leen kalaal laal xërëg doomu aadama foofu la commencé bàyyi leen si garab gii lekk leen garab yëpp fekk boobu jàpp jàpp tera iblis ba mu ko sujjóotoo caanaam te mu lànk ndax leer seen Muhammad rek a taxoon mu nekk sujjóotal mu bañ mu nekk génn naa la mu moom may ne lu mu mën a yàq rek yàq yàlla nekk ba ba mu des ñu ma sànni ndekete yàq gi bis nar a yàq yàllaa ko yàqaloo am lu mu am am lu mu ci namm te foofu la ko mën a jaarale ci kuy juum ndax moom yàlla du juum góob de li mu namm ci yàq gi da kaa teg kii juum ndax moom yàlla du ko jël ndax moom du juum ne bu laal garab gi jaan yi nga xam ne mooy garde buntu àjjana iblis ñëw ne ko damaa bëgg dugg ci biir mu ne awma ci droit mu ne ko mën na maa def nga nokki ma ci biir mu ne ko d'accord mu mu taxaw ci biir fekk Adama ak Awa ci taatu garab ga ne Adama yaa Awa lu tax léegoo garab gi ñu ne garab gi yàlla dana dana bu ñu ko laal nañu laal garab yi mu ne si garab gi mu ne gis nga garab gi boo ko laalee boo ngeleekee loo bëgg xam di xam da ngay xam xam-xamam yàlla ngay xam alimul xëy bi kumpa ngay xam doo dara dootu la réer loo tax mu tere leen day bañ ngeen mel ni moom dégg iblis le te it bañ a tegu mu jël benn matière bu ñu naa seetu won ko awaa gis jëm moom mu nekk gis nga kii ngay si nii mooy sa mooy sa wujj boo ko lekkul ba ñu di ko lekk yaa ngi dégg awaa aadama bi tab doom awa bi tab doom na patix on na ndax wax jooju jigéen yàgg naa ragal ragal ujj te boobu xam xamul li wujje sax aadama ne tiib ab doom woon na mun a mun teel ma put ga mu téey put ga mu yàbbi doom ba fekk meen ma meen na meen ma jàll sa aadama mooy man nii fa fa yàlla lay binde lépp ca leer ga la de garab ga leer ga la de déggoo ma de xalax kulle si yaay min nuur yi li may bind ci leer seeraan laa seeraan moo laa mu jaar foofu meeram doom ba mooy màndiw awa doom ba mu lekkoon bu jaaree ci biir ba yàlla def ka réegal muy sobe mu ne leen nag kañ def ngeen nag yow aadama lekk nga xam ne ku ko lekk da ngay am sobe te fii ngeen ko lekk kenn du fi def sobe yow awaa doom boobu nga lekk dina nekk a ah, réegal di génn ci yow te fii sobe di ko tuur dinaa ne sànni nekk daal sànni nekk ci alam boo xam ne fa la sobay am fa la ñu may tooñe fa laay duma kay mu yéen a koy waral déggoo ma de foofu lañ jógee nag mu sànni leen ci àdduna mu sànni aadama inda sànni awaa boori jëdda waaw ndekete yoo yàlla ci ne ma nar bind mbindeef yi ah ci tooñ googu moo tax mun a mun a yéen foog di tooñante ndax dama leen di bind ci ñaari tooñkat wala xat xëy israil fanasiya wala na jooloo xas man ah seen maam moomu jëkk a tooñ Adama ak moo tax foog ngeen di tooñal di orante yaa ngi dégg de ñoom ma jëkk ñoo ma jëkk a tooñ ma tere leen ñu def ma tere leen ñu def la ma bañ Adama nekke yinda awaa de kasi boori jidda seetante na ñetti téeméeraat mooy seen kasu ñetti téeméeraat suuf bi nga xamee ne seetante nañu ba mu am ñetti téeméeraat ba mu mat aadama nekk ci arafaat ca montagne boobu mooy taxawaay arafaat ci aj ga ñu farataal ko taxawaay aadama ba moom lañ farataal ca ko arafaat fa mu toog di séentu mu seen awaa jóge ca boori saw ba di daw di ñëw bi awaa yi a ko jëf àndatul ak foog mu am rapport dégg de fekk aada awaa it ba jeex na ba am ay fan ba mu yéegee nag fekk Adama ci kaw Arafat adam di ko song mu nekk Jibril ñoo ne ko max lan ya Adama kii daganagu la bàyyi ka bu ko laal mu ne ko du may def àndatul ak sagaam sag ñàkk saga googa mooy ñàkk saga gi dal góor ci jigéen jigéen lu mu la bëgg bëgg mën naa am saga mais góor bu bëggee dootu am saga foofa la lépp ñoonu ko teg ndax yaa ngi dégg mu ne ko du may def mu ne ko wàccil sa kaaba ga ca boori ndi yoor nga julli ci Seydina Muhammad borom leer ga ñetti yoon mu dagan la lolu sëy boo ko xutba ñetti salaatu nabi dagan na dégg mu wacci aadama julli ci ñent bi ñetti yoon sunu ma waa julli Fikir ñetti mu nekk dagan na ñu mu di ngay sos nak fi na batnin fi na batnin fi kulli batnin fi kulli batnin sakarin sakarin wonsa wawlu sa waxdahu waxdahu ci isa an taxala an taxala nuur muhammad sallallahu alayhi wa sallam am nañ am na ñeen fukki biir yu tool benn buur bu ci buur bu ci nekk saakarin góor bu wun sa ak jigéen waaye nag waxdahu ci isa ci isa ca nekk kenn lu war a mën an taxala nuur muhammad ànd ak leen Seydina Muhammad ab Seexam moo tax maa moo doon waxee rek siisin wa xayra siisin fa maa taati mun faridan fa maa لا تأتيه منفردا أواه تكريم نورا أواه تكريم نورا خير مستامي خير مستامي لرغا دم بمو جيخي كي شيخيا سيسا دومي آدم لا أواه كجور مي إدريسا أبسط لا لرغا دم إدريسا jóge ci Idrissa ñëw ci Nooyin jóge ci Nooyin ñëw ci Ibrahima kañ léegi ñuul gi ñëwati barki bàyyi laay moo na xaree faxas laay mooy rasulullah ñuulam ngoogu kenn mënu kaa dindi léegi nag mu ñëw ci Ismaïla ah, ci Ibrahima mu am jabar junnaa saarata nekk ak mu loppa juróom-ñetti fukki at amul doom mu dem ci benn pays buur ba nag ku dugg ca dëkk ba tànn ak sa jabar bu kat bu ko kat ak yi signal ci gàttal mu dem ci dëkk moom mu wax saarata gaa yi gis saarata rafet lool dem na boor ba am na gan gu fi dugg ak jabar ju rafet mu ne yëpp leen ma ndaw sa ñu yëpp ka ndaw sa muy saarata jabar ibrahima mu nekk moom ca pale ma mënalu ko dara yàlla téye cër yëpp mënalu ko dara bu guddee du man dara ci moom ibrahima it yàlla defal kasul ijaab mu ngeen a jomb ci ñoom ab yonente dara du ko ump dégg nga dama génne la ñuul gi fu Deng, legi bamu ba ba mar mu libéré ko ba ko libéré nak naka sa jabar ji mënalu ma ko tus jigéen ju fi ja andrama mu baye ki mënalu ma ko dara yow lo don Ibrahima nak ni rasulullah ab yonent ilaykum mu nak lo rota waye nak kontaan ci mom may jambu jambu ñul xol jambu ñul la ko may moy kan ajara Ajara la jox Saarata kado ñu ànd dem ba demee Ajara di ko xale bu rafet ah Saarata ne Ibrahima waa sa sa sa jaam bii na ma ak yow te amuñu doom te ma la kaa may ndax nga am ci doom yaa ngi dégg de Saarata jël Ajara may Ibrahima rek mu la dem mu Ismaïla xoolal yàlla ku nit ku ñuul ki waaye ñuul gi lii bañ a waaye déggoo ma waay ku ñuul ka ku ñuul ka mu ëmb ku ñuul ka kat boo ëmb waaye ku weex ka ëmbul de mu ëmb ëmb gi boo ëmb yonente bi yonente yàlla Ismaïla Ismaïla an taxala nuuru Muhammad Ismaïla nag léegi si janaa Muhammad encore léegi nag a sa a Ajara xëyee rek di gën a rafet ba yàgg nag saarata na kii mawtu ma kaa supporté nañu bën a noppee takkal kay jaar danañu xàmmee dañu xam ne sama jaama ju bën a noppee takka mu gën a rafet nañ ko jam lu jam ka mu gën a rafet nañ ko takkal ay lab mu ngi koy toilette bi mu gën a ba yàgg ba mu amee doom nag mu ne kii ak doomam ji yi sànni ji nag nekk ci àll ba du dëkk ak moom te booba bi mu ko ëmbee rek ajar fu mu daan piccee dañ koy beew laman taxa nuur na bi laman taxa nuur nabiya takamalan takamalan في شهر عبد الله في ذكر عبد الله كان له الولاء كان له الولاء خاص المفاخرة خاص المفاخرة والخنا والخنا دون الملا دون الملا مقامه ومقامه بين القبائل بين القبائل قد سما leer ga ba mu nekk ci Abdoulaye amatul am nawle ci kaw suuf baay Seydina Muhammad ku mu nekk ci yow rek dootoo am nawle nuurun tànkala nuurun tànkala huwa rahmaanu huwa rahmaanu kaafitoo min saalibin min saalibin taayirin fi taayiri ruxami fi taayiri ruxami mu jël leer ga def ko ci Ismaïla Ismaïla ñu ëmbale ka leer Seydina Muhammad Aajara ka jur de ku ñuul kuk leer ngay bëtt ca taabi xataaw ba dem di dem di dem di dem di dem ba ci Adnaan dugg ci Adnaan ba ci Abdou Moutalib bi mu ñëw ci Abdou Moutalib Abdoulaye Abdou du ma jël Abdoulaye Abdoulaye jur Rasulullaay xam nga agsi na léegi nag ba mu dee ba am ñeent fukki ne yàllaa ma yónni ba kaa tënk rek ñu nekk nag seetab seetab kii nu mu tuddati seetab aajara mën la gën ci mbindeef sama am ab jaam la waaye déggoo ma waaye ndax la mbir de am na ñu naa ak ak ak yonentaayu bu bële buy sax di woote ak yonent waxoon nañ ci ramoon ca Màkka ak yonentaayu ba ba Banu Haasim di yonent sëtëb sëtëb <laughs> di woote ak yonent yaayam di jàng bu jul ko maamam di jàng bu ko dégg de ñu ne fii lébu sax ñoo day te te nit ñi ñun ko lébu dee dara xoolee xeeb googa ak xeeb yi nga comparé leen ñuul ga rek pourtant yàlla day li mu gën a fonk lépp dafa ñuul kaaba ga dafa ñuul de alxuraan dafa ñuul de aadama dafa ñuul bët li ciy gis dafa ñuul dafa ñuul waaw aadama dafa ñuul ku bët li ciy gis di bi dafa ñuul ku yàlla foo réeb dañoo ñuul ñu xeeb ka lool wet di nga métti wet weddi weddi weddi wuñ ca yonente ga dañ kaa xeeb ba mu leen nee nag rahmatan lil alamin ñu nekk hee sitab aajara naa rahmatan lil alamin yow wéroo loolu moo taxaw ñu nekk ab dof nga fekk fekk fekk garab gi leen di faj la andi bi nga yàlla ne fii muy mool may déggoo ma waay muy mool dina pa di bay ba waxtu wa jot mune len ini rasulullah ilaykum mana a woon démb mana ñu nek manu la ne te Muhammad sàmm na ñu di ka fay commerce na ca ki khadijatu foog nga metti bi ak kii ko fi démb di sàmm mu samal fi deraar mu di ka fay ci mom nek fu suugam khadijatu tay mu na bi yonentala dede waay li mu di bay nek fi mo dàq fi git na bi yonentala ñom ñoo bari chaxan xeebeel gaa ngoogu nag tey wër naa duna ku mu neex mooy rasulullahi ku mu naqari mooy rasulullahi ku bëgg mooy rasulullahi ku bañ mooy rasulullahi ku gis mooy rasulullahi ku gëma mooy rasulullahi ku xoolit mooy rasulullahi kenn mënu ci dara waaw tey téere ba nee maadi yu bu feeñee lay néewoon mboroom ma mbooloom ma borom daraja ya borom daraja ya ñooy baare nit ña ngir seeni wërsëg comme li xew fi xam comme li xew rek xam ñu di reerang su ñu di reerang su ba so jox ko koppar doo doo wane yonente ah doo ko wane kat ah waaye ko ci ma mën a mooy rasulullah am déet mu ne ñooy ñooy accaparé nit ñi waaye maa di soxlawul mbooloo sa wirde wi sa wirde wi ko jaayul ne bonte ngariis mhm. sa kooku lay siiwal weet nga ku kërelaay yaa jiitoon gaaña diiwaan tànn lislaam léegi nee na yet boo ma jël dóor ko si géej ga mu dox ma dëkkee su ma bëggoon ay taalibe ba dóor ko seeni xol benn sëriñ doom ko la yore sa ay dégg ma waay yet ba mu jël dóor ko ci géej gi naka doxal géej gi dem bu fekkoon ne taalibe la bëgg mu dóor ko ci xooli jullit yi benn sëriñ doom ko la yoral sa sala waaye loolu taxu day muttali si donc moo tax ci banax i bàyyi bay dul ak juróom fukki jigéen rek yonente ga mat na defe naa pënan ko de ah moo defa daa tax gi leer na de عجبا دايلا ويا ما al الانس wal رسول الله اليكم xam nga li ngay laaj naa lu jiitu seen naa limaamu da ay maadi yu woote woon na fi loolu ngay laaj maadi yi xamul lu mu ñoom dañu am defet xam nga da nga mahdi yu al muntasar doo ko am <laughs> man maay Mahdi moo doo doo mën ne man lañ doon xaar ndax doo mën a xam biñ téere boo feeñ déggoo ma de ñaare leen jox defet mu ne man maay Mahdi yu woote ne maay Mahdi te benn téere waxoon ne Mahdi yu mii ak turwa al mun tasanu kii lañ doon xaar nga dem ba am defet deuxième deuxième def mooy lan amoom Eesa laa Mahdi <laughs> amul menn mahdiyu moo sa am am Isa limaamul mahdiyul bu nu rek moo ci am Isa te ne mahdiyu yi woote woon yëpp seen diine day fay waaye limaamul mahdi may ànd ak feeñ ca sawu ba koo kay limaamul mahdiyul bu nu tasal lawlaa isaaru walaahi lawlaa isaaru walaahi ibnu mahdi na lam yaxrifoo seydina limaamu fi لنا إلا لا وإن جاء لولا يزارو kenn amu ci eesa kenn jàngu ci benn téere lawla isaaru laay jànguñu leen ci benn téere amuñu benn dat bu ñu war a feeñ amuñu tur wa amuñu seen turu baay lawla isaaru laay mun tax dañ kaa jàng ba jàng turu baay ba lawla isaaru laay samsur wilaayati samtul wilayati waaw mam limaamu mahdi na nuurul kidayati sey qurbin wa min askari xayrul xalaayiki xayrul xalaayiki imaamul mursaliina ابن الأسن عسكري في محرب لا لا لا لا لا لا لا خير الخلائق مام الإمام مهدينا خير الخلائق مام الإمام مهدينا ابن الأسان عسكري في مهرب لا لا لا لا لا tegtal baa ngoogu limaam bi nga xam ne aaxiru samaan lay ñëw fenke sawu ba ca tefesu géej ga te asan jur ka askari ñu di ko dàkkantele dégg ma de xam nga loolu gën a wér sawu lay feeñee ca tefesu géej ga fa lay màgge fa lay wootee mais asana kay jur waaw kooka mooy xayru xalaayixi xayrul xalaayiki mooy sanga mbindeef ya imaamul mursalina turan mooy imaamul mahdi mi jiite yonente yëpp asan askari fii maxribe loolu la baatare mahdi yi sawulay juddoo falay feeñe mais asana kay jur na moom Seydina Limaamu yaati fi maxribina mu ñëw moo ki sawu bi najlun asan askari asan ma ngi dàkkantale fi makribil lalami ca saw ba ñaataat la fi def waxaala yaa xaw mi waxaala yaa xaw mi makastu makastu musalangor musalangor musalangor musalangor aksari alfa ami bi aksari alfa ami fil hurumi fil kurumi fi kulli laylin fi kulli laylin min layali min layali ya ajaban ya ajaban ya duru dunya ya duru dunya ala jihad ala jihad kulli himi ko kay madi muntasar koko koko moy mahdi min don set bo dem iran dañ ka tabaxal munara taba bo xamne ñu ngi décorer jama or ne bu madi ñewé fofu lay dal waye ben mi ko tarikh ba ba waxtu woo passé dañu ne Mady Kessa jàll na noonu muy demee ñu ne ñaari jant lañu yu fenk ba suux danga na fenkul ci man waay fenk nañ ba suux. xaala Seyku Omar Fuutiyu. di góoma de dañ ko doon xaar ca munaara ba ca Iran pour ñu dëkk ci dat ba passé gisuñu dara ñu ne waa ndax danoo ñëwul ñu ne déet ñëw nañu de ñaari jant lañu fenk nañu ba so danga naa nag fenkul ci man so waaye nag fenk nañ ba so fan la demal xaala seyku omar fuutiyu cheikh omar fuutiyu nee na ca rima fii kitaabi rima ci téere buñ naan rima fa xaala oustaz aboo mansoor mu jëlee ko ci aboo mansoor ana nabiyu na aboo mansoor jëlee ko seydina mohamad na nabiyu na naka yonente yi xataa baxda wafaati bu ñu génn xaala mamakatu kullu nabiin fil xabri du ñu sàkk seen ab xabru aksaru min arbaina laylatan du passé ñeen fukki guddi xataa yar faw laaw yàlla yëkkatiwaat leen ñu dem woote waaye nag du ñaan nag nu boowa xaala nabiyu Seydina Muhammad ni maa min nabiin man maay si yi yamootu wa yukrimu fil xabri yonente yi bu ci dee da nga gën a da nga xabru ana akramu ala rabbi man mi nga xam ne maa gën ci yàlla nag maa gën ci ñu yëpp ku maa la gën man nan yadruka nii fil kabri du ma section xabru mukk baxda salaasata ayaami lu paase ñetti fan saada imaamul xaramayni imaamul xaramayni naka aksaru min yawma waaye ñaari fan a pëna nga diga sa armeel wa xaala iyaat xaadi iyaat ne ana sukkandaawu. ñi ñi daan ànd ak moom di jaar. yu xajdoona bi ak saadim. waaj maag jotee dañuy am seen jëmm dem aji ci Kaaba ga. wayu farraxu ku boorom. boo nag nag ngeen di a weddee ñi daan ànd ak moom di jaar boo aj jotee ñu jël seeni jëmm dem aji Kaaba ga mooy nag ngeen di wedde si ki taxoon ñuy aj dégg nga de fa kayfa. fa kayfa. naka lay mën a nekkee. yustankaru mufarikatu nabi yustankaru mufarikati nabi lil qabri nak ngeen di koko wé deg Kala koku day dem qala wasailun mutakhabbil wasail mutakhabbil ne abdullahi in fasasiyu fasasiyu ne Wais kasada luhra dañu ka laaj yow comme da ngay da ngay delu juk ga da ngay delu bo delo fo

ngeen xamul ma bàyyi bu ngeen xamul fi ma teg sama jéege bi man borom jéege bi mat ma fi ma ko teg yaa fu mu ko teg makkatu mursala ngor la ko bi ak sari alfaami fil kurmi mu am fa junne di xool fan la war a feeñee fi kulli laylin fi guddi gu min a layaali li yajaban muy wër ca guddi ya ya dooru dunya di war aduna ala jihati kulli di sel fan la wara fi bahri fi saayilil bahri maswaun wa maskanu wa maskanu inal jibali inal jibali bayana bayana khayramun katimi khayramun katimi ngi dégg de xara yaa ngi madi yoy yep nak kenn jangulen amuñ amuñ askanu sen bàyyi ki len di jur ta amuñu esa ci li nga doon laaj moo tax maa Mahdi yëpp effacé imaamul mahdiul Muntasar nag Seydi axur Samaan yaa ngi dégg de kooku mooy limaamu mii ci Yoof ndax dana maa Mahdi yëpp Isaa ànd mu mën a maa Mahdi mu ne Isaa mu taman ci man lay matale téere ba da koy jur wala mu yarkate jur gaa gën a wóor mu farke jur ñu ne ñu ne Isaa cent six cent lay dund Isaa may remplacement di yu cent six cent lay dund ñoo ñoonuñ ci déggee 33 ans la amoon ca bànnu Israël ñu yàlla yëgal que 33 ans bu dellu see ci ci àdduna juddu ci Mahdi yu 33 ans la nekk xalifa mu ñaata xilaafa ga 40 ans la ci mu ñaata muy 106. yaayi Eesa yaayi Eesa Mariama xam nga ñaata la dunda ah xam ñaata la dund 33 ans la dund waaw mooy 33 ans yi dund yi yi nga xam ne. xaala Mariam umu Esa. yaay lu mu wax. ayami. man doomi fanweer ak ji. wallahu yarfu ila samai. Ya, dina yëkkatiwaat. wa yanzilu fi akiri zaman. wàcc sama dom ci zaman. في طريقة محمدية في طريقة المحمدية من مهدي وهو أبوك موينك بايم على رسول الله سيدنا محمد نينا في تفسير قوله تعالى شو هي الأدج الخلصبة أنه لا المساقة وكنا جخم خمسة نزل إيسا واتك إيسا وجاء في حديث النبي يكن في حديث سيدنا محمد قال أن إيسا وينك إيسا مومو نزلت فيكم دون وهو خليفا عليكم di sama xalifa baxta maadiyu sa ginnaaw maadiyu fa yafrawu ko salaami waxuwa xalifa nii waxuwa xalifa nii waxuwa sal yu sàlla wayu sàlla xalfahu wayu sàlla wayu sàlla xalifa nii wayu sàlla xalfahu wayu sàlla xalfahu wayu sàlla wayu sàlla xalifa nii xalifa nii dina julli sama ginnaaw bi maadiyu dina julli sama ginnaaw wayu sàlla xalfahu te su ma génnaat moo may jullee ñoo waxoon Isa di jullee. ñoo waxoon Isa di jullee. Hmm. dem jóg na file am na rooxu laaya jullee. bi imaami rahmate. Sidi roowalaay ku la am ngërëm fa jannate. ñoo waxoon Isa di jullee. Mahdiya dem jóg na file am na roowalaay jullee. bi imaami. dégg nga saxeer wax. téere bi may ñëpp d'accord nañ maa diw Isa dina julli ci ginnaaw te bu génne moo koy jullee wayu sàlla xalfahu wayu sàlla xalifahu demal. wayu sàlla xalfahu. dina julli ci ginnaawam. wayu sàlla xalifani. te moo koy jiite nekk xalifaam. bi maa diw. ci si jamono maa wa huwa min lax jam. ku ñuul lay doon. laysa fiikum arabiyu. du nekk ab arab. lakin. li fi du làkk mukk. bilukatil arabiyati langue arabe yatakallamuuna mu ngay làkk bilukatil ajamiyati su waxee nit ku ñuul lay wax lahum kaafisoo min min xayri jimsihim xanaa loolu doy na ci wax ah, du làkk arab de nit ajam lay làkk làkku ajam lay làkk waaye nag loo ko laaj loo ko yow mii di fóor yee boo ñëwee sa mooti xol mu ràññe ko keroog mu jam la doo fa yoo baloo xamoon nga réere ko allahumma salli ala sayyidina muhammadu salli wa ya rabbi salli ala muhammadu bilaa waay ku nekk foore boo nuyoo mbooti xol mu ràññe ko mu jam la baloo xamoon nga ko walaay allahumma salli ala sayyidina muhammadu salli wa sallim ya rabbi salli yaaram ba feeñ na seyle boo xërëm yatin na bay fa boo borom nga ne lañuy ka boo yaa woote diina noo